waaw kii la deux mille trois mille eh, la jox mi daara yi sax Mbacke Ndiaye ñi borom xam-xam bu rafet bi di joxe ndimbal gi xam-xam bu leer bu nit ñi mën a jariñoo moom lañ seet tey suñu Habib Gaye keroog audio bi parce que Soxna Aliou moom àdduna rek war na ko. ñu ngi lay àndal nii tey ñëw siyaare si seen Mbàkke. seen Mbàkke taxaw baax a baax a baax ñaan yàlla bu dee seen fan dëgëral leen. xam ne yéen ngi liggéey yàlla ci jullit ñi. liggéey boo xam ne si. bu leen yàlla fay askan yëpp dañ ci xaj. yàlla nañu ko yàlla fay. di jàpp si ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam. xanaa di sant yàlla. ci yéen sant yàlla ci xamante bi nu xamante. di sant Mouhamed. sant sëriñ boobu sëriñ abi moo tax ñu xam waa taskiru sab moo xam ne li ñuy liggéey yàlla na mu tasaaroo ci àddina bi mu dugal ma ca yéen yéen ñëpp mel ni moom nag jikko nangu lépp yaatu lu baax lu ne amu leen ci fond ne fii ngeen di yem ci lu baax moom xaw ma ko taskiru sab ci kenn nag ca ko ah nag yàlla na taw ñu mbindam sëriñ Tuubaa la jàngale taggoom ay téeréem xalima duna ca yokk duna ca wàññi ca fiq tawhid tasawuf ndax àddina bépp ku fi mbooloo topp ak koo man di doon na te jàngaloo leen fiq ak tasawuf ak tawhid da ngay sow ci seenu nopp rek luñ la jox tamit dañ laa fay leen rek ak noo man di sant ak koo man di doon nga fexe ba xam-xamu fekk ak tasawuf ak tawhid dugg ca bopp nit ñi ñu xàmmee fi ñuy teg seen tànk ba am ngërëmal yàlla koo man di doon baax koo man di doon toj topp la ngeen di fecce ko tàccoo ko jaaxaan te ñëpp yi gën a réer bu doo ca wax kenn masal fu muy teg tànkam ba am ngërëmal yàlla da ngay nax ñëpp lu ñu la jox tamit doo addi ab lempo la moo fi am lii nag yéen ñii amu ci kenn ku ci di sëpp ca ñoo ñee ñu xam borom sant yu waaye lii ngeen di def yéen moo war ñooña kon bu ngeen di liggéey ñooña ngeen di liggéey yal na yàlla li li bëgg nangu liggéey Serigne Touba lii la bëgg a Maalik lii la bëgg kun fi di kilifa diine loolu la bëgg ku ko def lii la bëgg ku ko defut lii la bëgg ñu bari nag daraja la ñuy wut ak xam-xam ñu bari dañoo jàng alxuraan ba man koo tari waaye xam mënuñoo xamuñu dara ci fekk kaala gu rëy ñu mbooloo mi topp la bu ku ne ñibbee kenn du xam sax ak jamono su jot nañu koy réglé warut nag ñëpp la war li ngeen di def xam nit ñi xàmmee diine boo xamewut fekk xamoo nooy jaamoo yàlla te ku am ngërëmal yàlla doo dem àjjana te yàllaa ne nag dee leen ma jaamoo nii yéen nag yéenay jafañ nañuy jaamoo yàlla ak bese juumee nañ koy defaree. sëñ Tuba bind ko jëf ko digle jërëjëf na ci ñëpp jàpp. jërëjëf yàlla boo demee jàmm. amiin yaa rabbi jënd ngeen baax la jënd ngeen bari la jënd ngeen barkeel. amiin yaa rabbi sëriñ Balla ñaan. jërëjëf jërëjëf yàlla nga baax. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. sëriñ Yango Ba Gueye waaw Yaxooba. Yango Ba Gueye waaw Yaxooba Gueye. Mm-hmm. sëriñ Habib Gueye. Mm-hmm. ak Serigne Mouhamadou. ma ca Afrique du Sud. Mouhamadou Lay waaw. Mouhamadou Lay. Ah, ak Serigne Abdou Jalil. Serigne Moustapha Ndiaye. Hmm. dama leen a xàmmee ci diine yitteel gi mu leen yitteel yéen moom diine leen sax moom. Hmm. yitte jooju nag yàlla na dem bàjjal. amiin yaa rabbi amiin na li ñu may tëjee. Hmm. yaa mahsara mbooleen yéen waxambaane yëpp. in xiftum ñeem ragal ngeen. xajal. gàcceeg àddina ko àllaaxira fa xaddi moo na ngeen jiital moo mooy yéen ñëpp na ngeen jiital du loolu Sëñ Tuubaa hmm. taxaluman ak xamlu alal amal ca jëf jëf waaw lu tax ñu fi bàyyi di bàyyi loolu di wax leneen li Sëñ Tuubaa aleykum watub bi naa wa xaw wi naa wa kun lanaa ah, ah, ah. wa hë lanaa usna alxitaami rabbana wasalliyan ala nabi wa sallimi waqdi bihi haajata kulla muslimin wa an nakoona ulama amilin wa an nakoona awliyaa kaamilin wa an nakoona furata labrari jamin fi sirri wal jahari wam ho saqawatan nahtina ya halim wa jël fuwadanna madinatul gulo wa siddanna amin la rabbi sabudan wastiqamatin wa bi rabbi yaa rabbi sawil buhdi wal qurba aji fa jóg mbiri jub ak di mën ak yërmande ak xéewal ak jàmm ak wërsëg ak wér ak mu rafet mu rafet gudd fan gu ànd ak wér ak wërsëg ak wér wal yàlla yàlla ko yàlla boole